fas yéene indi fii ay étudiants pour ñu ñëw jàng si fii waaw bi ñu ko déggee mu jaaxal ñu aussi quoi parce que CICES euh, mission bi ñu ko jox nekkul euh, mbirum jàngale mais mbirum njaay la ak njënd organiser ay foire ak ay salon euh, voilà événement yi ñuy organise fii ay nit dañ ciy dugal seen xaalis pour durant une année ce qui fait que donc mënoo koo tëb fomm parce que fii lañ ko tàmm di defee te loolu mooy suñu liggéey donc fii mënuñu xajal ay étudiants ñu ñëw fii ne dañuy jàng parce que lépp lu nit war a soxla pour mën a jàng déjà amu fi donc bu ñu waxantee dëgg bu ñu bëggee jàng université la mais CICES li fi nekk yëpp boo ko dajalee njàngum élève mënu fee ne ñun xam nañ jàng parce que jàng nañ donc lépp li nga xam ne euh, war nañ ko soxla pour nit ki mën a jàng loolu amul fii